élection maire yi ah, nit ñi xaw nañ am tiitaange violence bi nga xam moo xew ci réew mi ba ci élection yi di ñëw lan ngay dénk Sénégal waaw li ma leen di dënk rek mooy ñu faral di génn sarax yu bari sarax yi nag li ci jiitu maanaam na nekk lu weex lu deme ni këyit yu weex papier marabu yi suukar lu waaw soow euh, lu mel ni lu mel ni meew perkal sondel maanaam lu bari nañ koy faral di ko génn sarax euh, li ci topp nag mooy nañuy faral di jàng alquran di wàcce ay kaamil di ñaan yàlla euh, li ma lay wax nii Pa Maguette dama bëgg ndax fii nag yàgg naa fi wax ay mbir yoo xamante ni euh, waaw man waxuma pour tiital ay sénégalais yi parce que man fii laa dëkk sama njaboot fii lañ nekk kon lu may wax lu ne la cay jàmm kenn gënuma ko cee bëgg ndax ku fi say doom nekk sa baay nekk fi sa yaay nekk fi sa njaboot nekk fi ñi la yaakaar nekk fi nga fas yéene fi teddee war nga di ñaan jàmm ci réew moomu te fii duñ jog ci di yàlla kaamil yaa ngi nii toujours chaque vendredi dinañ wàcce fi kaamil dinañ fi joxe ay dog dinañ fi jàng ay xësida dinañ fi def ay salaatu ala nabi ay istigfaar ay zikrullah yu baree bari ngir jàmm ci réew mi waaye nag ci jàmm jooju dafa am loo xamante ni suñ borom boo ko dogalee dañ koy wax lam dogal pour ñu wax ko waxuñ ko ngir nit ñi tiit mais dañ koy wax ngir nit ñi fagaru gis nga élection euh, maire yi ñu jëm nii fitna bu baree baree baree bari dina ci am fitna bi nag du lenn lu du ku ci rek sa intérêt bopp moo lay ñor waaye fitna boobu xam nga fitna bu laan am sax ci ci ci ci ci ci ci jeunesse Sénégal yi lay dal mais bii fitna bii ñëw ci homme politique yi lay dal Hmm. waaw waaw. ah yii passé de jeunes yooyu dee bii passé quatorze mois. élection yi bu paasee soo ci déggee benn jeune bu ci dee boo xamante ni bokkul ci njabootu ñi nga xam ne ñooy homme politicien yi. billaahi wal kitaab bi dama bëgg ngeen dagg loolu tas ko ci àdduna bi yëpp. dama ne élection yi di ñëw moo xam ñu jël seen njaboot yi leen fu mu leen mën a fekk dama leen ne bu deret nara tuuru bakkan tuuru ci ñoom lay doon tourné ci seen côté quoi. 2022 lañ nekk chiffre bi lim joxe képp ku toogul fi nga war a toog fas si soxol jàmm ak sutura ak yiw loo xàcc lu ne si sa bopp nga koy dóor. muy Macky muy muy ñeneen ak ñeneen. dama ne ci président Macky Sall laa koy laa koy commencé wàcc ba ci ki gën tuuti ci politiciens yi dama la ne képp ku wootewul jàmm dafoo jàmm. ñaanoo jàmm am ci réew mi loo yee lu ne dina la lakk ba nga jeex tàkk yem ci yow bu dee ay accident la bu dee ay balu fetal yuy yuy tàkk la bu dee lu mënti doon dama leen ne ci seen biir lay nekk ñoom. léegi bi ñuy jeexalee mooy que ne. Euh, Sonko Adji Sarr coow li bari na woon trop daaw justice fii coow fii marché ak ñoom seen ñoom alors mu mel ni ki wax jooju dafa mel ni ki dañ ko xaw dëgg ci suuf dañu dëgg bal bi euh, loo jàpp ci coow lool dana jugaat wala naka lay mujjee ci li nga ci gis. waaw euh, Pape wax jooju moom daf ma daf ma intéressé trop parce que dañ ci yàgg di wax euh, mu nekk loo xamante ni lu ñu lu ñu amal importance la waaye gis nga wax jooju feek Macky Sall mu ci réew mi. du sa fay genre volcan la nag dafay dal waaye saa yuñ bëggee mu jog dina jog waaye dama lay wax ne depuis mu commencé ak léegi gis nga saa yu jogee saa yu jogee li gën a fort lay yëbaale muy ay bakkan dégg nga loolu nag dañ koy wax ci ñaari mbir mooy xam ne Sonko nit la koo xamante ni ku am ginnaaw la te ku yàlla préparé la maanaam waxuwuñ ci que ne non dafa am secret bu nekk ci moom boo xamante ni Pa Maguette wax naa la ko depuis. waaw waaw waaw coow li ba muy commencé. waaw waaw waaw na la Sonko gis naa ko ci yoon woo xamante ni musul ko wàcc fan yi sax gis naa benn sëriñ bu ne Sonko bu fekkoon ne euh, euh, pouvoir am dix la perte na neuf yëpp waxul lu am de déedéet dama ne baatin bi yàlla def ci moom saa yu yeewoo day gën a yokku. mais dagaram wàññeekuwul nii. déedéet mu dama ne tarfatulaay ni wàññeekuwul ci te loolu képp ku bëgg jàmm ak sutura ak bëgg fee yàgg dama ne ñoom ñëpp dinañ fi jógee benn par benn. jigéen bu demee naka. maanaam dañuy par benn parce que dootuñ ko waxati. dañuy dee waaw. Ah, dama la ne. Hmm. maanaam bu ci ne dafay xam nga ci suuf lay commencé mais dina dem ba laal ci ñoo xamante ni sax maanaam seen seen seen a tànk toll na foo xamante ni benn sénégalais xamul sax dayo bi te loolu euh, dama ci ñaax ñëpp di ci ñaax kilifa diine yi ak kilifa aada yi nañ ñaan jàmm ci loolu mu jeex ndax am na nit ñoo xamante ni suñ boroom lam daf ci ñoom du ne moo leen di laal te tuuma. Euh, dafa diis ci as gor waaye tamit tàppale ak caaxaan ak taqal as gor dafa yàgg ci ci ci ci ci ci réew mi waaye da ngay xool ñi ko mus a def musuñ am ndam te yàlla munul wax ci alquran ne dëgg maanaam lu mu suufee suufee suufee suufee mënul suufee bañ jaawale ko fen waaye fen tamit lu mu kawe kawe kawe kawe munuñ kawe bañ jaawale ko ak dëgg te nag nit munul nekk ci fen nekk ci fen ba jàpp ne du si musa am jafe-jafe munoo nekk ci dëgg munoo nekk ci dëgg ba jàpp ne dëgg ji du la musa jëriñ dara doomu aadama foofu la ko yàlla bindee waaye ñu gis ci ay mbir yoo xamante ni dañuy ñaan président Macky Sall mooy na xool nu mu rafetalee jeexantalam góor góorlu ci mu am woy bu rafet fexe ba nga xam ne dina ko am ndax ci ci ci ay génération li ko ci yàlla defal moom rek moo ko ci am ci depuis Sénégal di Sénégal ba tey kon loolu lam ciy def mooy mu rafetal lépp mu bañ a xool ma sàmba xool ma dem demba te man jàpp ma ne Macky Sall mooy nit ki nga xam ne ne tey nitu fitna la wala nitu problème la déedéet li ma jàpp mooy ñi ko wër ñoom ñooy maanaam ay nit yu bon baaxuñ mu ci depuis ci ministre mi ba ci suuf amul kenn koo xamante ne tey taxaw nga taxawaay pour liggéey Macky Sall xam ne yaa ngi liggéey tey boo ci sitee man naa wax ñetti nit rek nga ci nga ci tudd ñetti nit ñi ci des ñëpp ci dagg ay tànkam yàqal ko ak waxu lu du dëgg ak nëpp nëppal ay mbiram ba nga xam ne nit ñi duñ xam li fi Macky Sall def ak li mu fi defal waaye ku mel ni euh, Matar Ba kooku mu ngi liggéey kooku moom ca lam nekk man musuma ko gis musuma ko dégg mais mais nit la koo xamante ni Pa Pa Matar euh, man saa yu ma seetaane sport dinaa koo gis kooku Macky Sall daf ko war a gën a bàyyi xel dégg nga ku mel ni Diouf saar kooku tamit ci liñ ko fal ma xam ko saa yoo gëstoo di nga ko gis mais ministre boo xamante ni yow man xaw ma sax man yenn ministre yi sax xaw ma lu. waa ok mais ñooñu lan la tekki kon ci senegal lan la ñuy tekki kon nag nit ñi il faut que ñu delloo nit ñi maanaam ci seen i place ki nga war a wax dëgg nga wax ko dëgg ki nga war a conseiller ci lu baax nga conseiller ko ci lu baax ki nga war a waxal ci li nga xam ne mooy defar dëkk bi ñu defar ko ci ci lu baax waaye ma xamal leen ne Sénégal képp ku ko bëgg taal yaay tàkk. ndax gis nga dëkk bi li fi yàlla def fu dut fi yonent bi tëdd nekkul fa senegal dama la ne li yàlla def ci senegal fi yonent bi tëdd fu foofu amul benn dëkk booy dem fekk fa li nga xam ne fekk nga ko fa lu ëpp li senegal am fi Alaaji Malick nekk Serigne Touba nekk fa maam bu Kunta Ndiassane Amari Ndak Seck maam Limaamu Laay Alaaji Ndaw Daaru Salaam maam Abdoulaye Niass maam Khalifa Baye Niass ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tëdd foofu dëkk boobu di di nekk ci fitna ay nit yu bon ñu tekkiwul dara ñëw taxaw pour yàq loolu loolu mënu nekk. bu jërëjëf Cheikh euh, xam naa ne waxtaan bi euh, nekk na waxtaan bu am solo ci ay points yu am solo tey tey dégg nañ dëgg dégg nañ ñaax ñu ngi lay gërëm si macha allah euh, Pape Maguette ñu ngi lay delloo ziar bu baax di la ñaanal jàmm rek di wax ne nañ delluwaat seen xel ci yàlla. te xam ku ci ne li nga xam ne ne tey moo lay jëmale ci kanam tey dënk jeunes yi nañ def tere attention te tamit di leen wax ne atum deux mille vingt deux bi jeune bu ci góorgóorlu di nga tekki jeune bu ci góorgóorlu di nga tekki waaw dina neex dina neex te dina am naataange te dina am barke te jeune bu ci góorgóorlu laa la wax de nga yëngatu tuuti di nga ibbeeku te li nga am dina barke di wax ne tamit nañuy moytandiku yu baree bari di moytundiku di di di di di yee fitna yi di moytundiku ci li nga xam ne ne amulul benn njëriñ benn benn doomu sénégalais ci ñi nekk ci réew mi ak ñi nekkul ci ñi nekkul ci réew mi di wax ne tamit nañu tuubaat di sàkk sarax tey tey fonk mag ñi waaye tamit tey jaamu yàlla di ñaan yàlla suñ borom def jàmm ci réew mi waaye tamit di baaluwaat ak ñëpp di nuyu sama sama sama soppe yëpp ñu nekk ci réew meek ak ñu nekk ci bitim réew di ñaanal ñëpp jàmm di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaa ngeen jëf.